5M TV Sénégal. mbokk internet yi 5M TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di ci yéen tey dalal jàmbaar dalal koo xam ne patriote 100 pour cent la ñu koy wax Saliou Khelcom Saliou Khelcom jàpp naa ne ñëpp ràññee nañ ko si TikTok beeg yooyu muy défendre Ousmane Sonko parce que dañoo gis ne moom day défendre Ousmane sonkoo day défendre Ousmane Sonko ku dal ci kaw Ousmane Sonko mu dal sa kaw. moo tax tey ñu ñu bëgg a ñëw waxtaan ak moom kon Saliou man mbokk yi lay seetaan. waaw sëñ Cheikhouna maa ngi lay ziare bu baax di ziare say followers waa Seck Ngoman TV maa ngi ziare ñëpp jërëjëf sëñ Cheikhouna ñu dugg si waxtaan bi. Euh, Saliou ñu ràññee la lool ci TikTok bi ñu xëy xëy gis la ngay def ay vidéo di défendre Ousmane Sonko lan moo waral loolu comme ça par exemple lan moo lan moo sa cofeel ci Ousmane loolu lan moo waral cofeel gi ci Ousmane Sonko ba tax nga bëgg ko ba nga def ay vidéo. waaw ku dal ci kaw Ousmane Sonko nga ci kawam. waaw suñ seexu na loolu li waral suñ cofeel ci Ousmane Sonko moom mooy moom moo ñu wan cofeel rek ñu delloo ko ko moom moo ñu wan bëgg gi mu bëgg askan wi bëgg gi mu bëgg réew mi patriote bi nekk si moom loolu lañ ko loolu lañ ko delloowaat rek waaw ndax dafa ñëw dafa ñëw joxe boppam sacrifier boppam waaw dafa ñëw sacrifier boppam ngir Sénégal ñëw ñu yàqal ko liggéeyam ngir Sénégal mer koo faagaagal ngir Sénégal te mu yomboon si moom lool wax dëgg yàlla. waaw euh, sëñ Saliou maanaam dañoo gis ne par exemple TikTok bi dañuy gis ne yow say vidéo maanaam heure boo defee rek da ngay dal ci kaw kenn ko xam daa dal ci kaw ba fan yii gis nañ nga dal ci kaw xuma euh, euh, commissaire Kayta xuma nga dal ci kawam ginnaaw ba mu ñu ko invité amul am kàddu yu njëkk di jëmale ko ci Ousmane Sonko ba nga dal ci kawam. Euh, lan ma waral lan mooy waral mbay ngay dal ci kaw gars yi comme <laughs> lan ma waral loolu. waaw sëñ Cheikh euh, naa loolu moom. ñun képp ku dal ci kaw Ousmane Sonko. su sunu kaw nga dal. Mm. ndax ci kaw Sénégal nga dal. Mm. commissaire Kayta. Mm. nga may wax nee na moom xamante na ak Sonko bu yàgg. Mm-hmm. booyam la woon Ousmane Sonko moom moo ko daan wëri. di ko fréquenté. defe naa kon moom loolu moom wane na ni yaafuus na. wala torox na boog ndax Ousmane tey jii moom mooy wëri moom mooy rey boppam. Mm. pour pour gis Ousmane Sonko te mënu koo gis loolu moo ko. mënut a gis mënut a gis Ousmane Sonko. mënu koo gis mënu koo dégg loolu moo tax mu sa muy def lii muy def ni yëpp di wër plateau yi. Mm. di saaga Ousmane Sonko di ko sosal. Mm. loolu kese la ndax Ousmane Sonko du fréquenté genre nit yooyu. tam. Mm-hmm. moom daa bëgg daal Ousmane Sonko daa bëgg demaat ci moom la moo tax mu koy. waaw Ousmane Sonko boo xasee taq du la fréquente boo xoolee yan saaru nit lay fere boo xoolee ci Ousmane Sonko di nga xam ne du su fréquente saaru nit yooyu nga xam ne commissaire boo xam ne mhm. ñëpp xam nañ li ko jëlee fa mu nekkoon mhm. njuuba di doonga moo ko fa jële mhm. tey jii nag ñooñu noonu dañoo torox waaw daanaka mën naa wax nit man da li ma leen wax mooy ay xaj yu say lañ fi mu toll nii say ay xaj yu say waaw moom laa leen di wax ndax <laughs> ah, di eh. di wër plateau yi toog say moro say moroomi doom di la wax fen loo di la wax loo yenn wax yi ngay wax loo xam ni dara du ci dëgg xam nga mënul wax mënuñoo wax ba c'est Ousmane Sonko. Mm. ñoom ñu gëmloo sénégalais ni Ousmane Sonko nit bu bon la. Mm. te loolu rek mooy seen yite ñu wax sénégalais yi ni Sonko nit bu baaxul nit bu bon la. te ñun. Mm. du ñun ñoo ñuy wax Sonko dafa bon. parce que ñoom ñi ñu koy wax baaxuñu mun ñoo gis lu baax ñoom ci boppam seen i bët ci boppam moo gum moo dañoo seen i xol. kii na seen i bët gum la mënuñoo xam mënuñoo gis lu baax. lu bon rek la ñu gis ci nit même bu ñu jàkkaarloo ku baax sax lu bon la ñuy gis. lu bon la ñuy wax. loolu moo leen dal. waaw euh, Saliou ko maanaam ñi gis ñi par exemple euh, jamono ji patriote yi dañuy tuubalaate di dugale di dugale passif maanaam loolu ma def daal comme. loolu moom mooy. <laughs> Ah. comme ga comme ñi fi nekk liñ li ñuy def mooy. Ah. seeni ndaw la lañ yor yoo xam ni dañ leen di bàyyi ñu liggéey tëdd nelaw ba seen ta tàng ñu jóg hmm. bu ñu amee ay saal buloo lu salte ñu di leen def looyu sanru ligi léegi sanru nit yi ñun sanru booyee la ñuy wër hmm. képp koo xam ne tàmmal nañ la taxawaalu liggéey saaga nit ñi hmm. buñ taseeg yow ñu xamal leen ñu dugal buñ la dugalee ci loolu mooy boo tuubal boobu mooy buñ dugalee ci li ci projet bi nag Pastef dañu xamal ni la saaga yi dañ lay aaye saaga yi ak gëm gëmloo sa bopp ni la demal liggéey bàyyi li nga doon def. bàyyi taxawaalu bi bàyyi taxawaalu bi bàyyi caaxaan yi. suñu saaliw maanaam euh, fan yi rek ñu tàgg ñu koo xam ne jàmbaar la woon nekk koo xam ne euh, xeexkat la woon nekk koo xam ne ku ñu ràññee ci Sénégal la muy Imam Ndaw euh, ni ko ba ki démb rek waaw mu mu wuy ji boromam nekkoon hôpital ba sax Sénégal yi daal dajal benn kañoon boo xam ne dañ ko dajal pour moom mais mu jul sax egg si moom mu wuy ji boromam ñu gis nga defoon vidéo sax ba di ko ba di ko ñaanal. waaw léegi luñ maanaam dañoo bëgg daal par exemple nga wax ñu par exemple ci Imam Ndaw ak euh, ni mu ni mu bëggee woon Sénégal waaw ni mu nekkee patriote cent pour cent parce que moom jàmbaar la lool waaw. waaw suñu seexu naa Imaam euh, Imaam Badar Ndaw hmm. ñu ngi koy jaale Sénégal gépp hmm. ndax Sénégal moo ñàkk. Hmm. di ko ñaanal njéggalu yàlla ak yërmandeem. suñu borom xare ko ci àjjana gën a kawe. wax dëgg yàlla jàmbaar la woon jàmbaar yi lislaam la woon mm. jàmbaar la tamit ci xeexal Sénégal ndax dafa bokk ci kilifa diine yi nga xamante ne si nanguwuñu woon état bi gaw leen rek ci seeni mimbar mm. mimbar yi sax it état bi bàyyiwu leen ko ndax mm-hmm. léeg-léeg dégg nga fi bu yàggul Macky Sall di wax ni ci bi ñuy wax ci mbirum góor jigéen yi mu ne imaam yi di dem bay xutba ci mbirum góor jigéen mm-hmm. nga xam ni te moom buñ moom nag mu taxawee foofu noonu mm-hmm. waaye yemul ci mimbar bi da doon wàcc ci terrain bi mu doon nag li li nga xam ne moom moo metti ñii parce que ñoom dañoo dañoo bëgg kilifa diine yi dañ leen bëgg gëmloo ni léegi leew seen mbir a ngi ne ñun da ngeen ñuy bàyyi suñu mbir mm-hmm. ñu doxal mm-hmm. waaye ñoom mbir mbiri kilifa diine sax bàyyiwuñ leen ko mm-hmm. ndax ñu ngi buñ bu kilifa diine li kilifa diine yi di xeex ni seen mbir la mooy lépp lu bon lu jëm ci seenu askan waaye gis nañu képp ku koy xeex dinañ teg ci sa kaw wàllum terrorisme nga xam ne loolu la ñuy xeexee bépp nit bu jóg ngir faaga li ñu def nag kilifa diine yooyu mënuñu koo am ci ñëpp. mooy mm. fexe ba noppi loo leen génn loo leen ci seen lii ñu nekk. Mm. te ñëpp ku ko am ku ko am nag ci ñoom nga ko wut see. Ah. kon ñoom ñoo koy koy ni nga la dénk. Mm. mu mel ne sax i la doon doon nettali bi ñu doon ne ne seen seen prison dafa métti lool parce que ñoom seen seen seen wàllu yi dañ la koy dañ la koy tiibale maanaam euh, mën naa ni feebar parce que fi ñuy nekk tamit duñu mën a nooyu nooyu bu baax maanaam loolu tamit bokk na ci respect parce que nit moo koy tëjee foo xam maam mun faa nooy nooy bu baax mun faa nekk nekk bu maanaam tëj nit tamit taxul nga mu nekk jaam ak yooyu daal waaw xam nga hmm. ñoom bi ñuy jàpp maam ndaw hmm. lenn moo nekkoon kii bi mooy hmm. noppiloo ko noppiloo ko noppiloo googu nag moom mooy indi bu la yóbboo ci prison yi ñu lay teg fitna ak di la mettital waaye Imaam ndaw tey jii pour man gagné na combat bi mu doon xeex. ndax ba bi ni mu fiy jógee. Mhm. noppiwul ji wax la mu doon wax. Mhm. ba ni mu fiy jógee kon defe naa gagné na combat tey jii. macha allah xeex na xeexal na lislaam ci ni mu ko war a xeexalee. Mhm. li ñu bëgg ci kilifa diine yi. mooy ñu génn ci li euh, lii ñu nekk génn ci mbirum politique mi moom dafa d'accordul woon lool. d'accord waaw moom dafa nekkoon kilifa diine yi boo xool ay kee nu mu tudd Cheikh Mouhidine sàmba Diallo ak ñooñu ñëpp. waaye naka jekk noonu ngay déggee ay sëñ Saliou Sow ñoom ñëpp ñuy wax loolu. macha allah ndax ñoom ñëpp ngay dégg. Mhm. ñuy wax ñuy ñuy mu doonoon ñoo xam dañ leen doon tëkku dañ leen doon wax dinañ leen rey bu ngeen bàyyiwul li ngeen di wax. Ah. ndax ñoom. Mhm. lan moo tax léegi ñuy am ak problème ñiy xeex wàllum góor jigéen ak saar yooyu loolu mooy question bi. Mhm. ñuy xeex ay góor jigéen ak formation yeeg lobby yooyu noonu. lan moo tax ñoom. ñu nekkal ñu bëgg fee nekkal ñooñu. ku xeex ak ñooñu ñoom ñoom ngay xeexal. wala ñoom loolu lañ wala ñoom ñoom jaaduwul dañ ay góor jigéen wala lan la. ban problème lañ am ak. ñiy xeex wàllu wàllu góor jigéen googu. Mm, loolu mooy question bi. macha allah euh, kii dañoo gis sa compte bi dañ demee dañ ko bëgg dañ ko avertissement léegi <laughs> Moussa dina la arrangé buñ ko kii ak yooyu ba am nga beneen compte rek gis nañ ne dañ ko avertissement de. waaw gars yi nekkul waa Macky Sall ñu ko avertissement yooyu ñoo la signalé compte bi. waaw gars yi moom tout le temps loolu la ñuy def. bu leen gisee yu ñu dañ koy signalé. ñu signalé dañu defalee waaw dañuy signalé suñuy compte moo tax moo doon wax gars ñu dem abonné si kii mais. Mhm. loolu du tax ñu bàyyi dinañ créé dañuy créé waat yeneen rek. continué de. waaw am naa page YouTube. Mm. Saliou Sène euh, laa def waaw. waaw Saliou Xelkom kon mu la ma ko waral dañuy maam Saliou gi dañ laa tuddee fa demee noonu waaw Saliou Xelkom ngi dañ maa tuddee sëñ Saliou ba noppi ma nekkoon Xelkom dañuy dégg naan Saliou Xelkom rek Saliou moo tax ñu war a ñu <laughs> <laughs> ñu war a amit waaw ñu war a ñenn ñi Saliou Sonko <laughs> eh, moom Ndiaye Ndiaye tamit nga gis ni comme ni yow lay def di défendre Ousmane Sonko macha allah yéen nit tubaab ngeen jàmbar lool patriote cent pour cent ngeen mm-hmm. moom tamit ñu gis muy défendre Ousmane Mhm. Eh, daa mel yow eh, demagoo Dakar ak yooyu de comme gars yi invité la si plateau yi pour nga waxtaan ak demaguma si plateau nag eh, invitation yooyu parce que mhm. Mhm. xam nga rek dama maa ngi seen <laughs> baal ma nekk seen élève ba si kanam daal ah, nekk seen élève ah, ah, waaw kay macha allah kon mën nga mbokk yi la seetaan rek waaw maa ngi ziaraat ñëpp rek di rafetlu sa déplacement bi nga def ni ñëw seet suñu may ñu wax sunu xalaat si réew mi. Mm-hmm. ñu koy rafet lu baax di la sant di la gërëm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf kon mbokk internet yi euh, ma nekkoon saa mais ñu bëri ràññee ko ñu ne dugg ci tiktok bi soo daan dañu ko ràññee parce que moom euh, Ousmane Sonko lay défendre ci li mu wax dafa dëgg ci moom ba képp képp xam naa génn daal di wax ci Ousmane Sonko loo xam ne ñaaw la dina la tontu. waaw loolu di wane ne dafa dëgg rek parce que su ko neexoon du kon bokkee xam naa kon jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal. 5M TV Sénégal.